السلام عليكم tabarakallahu ñi ngi leen di nuyu di dellu ziyaare waa xadaru bi yépp di leen delloo njukkal te di leen ndokkeel ci guddi barke bi xam naa dafa mel na rek jamono ju nekk ñuy dellu di sant yàlla ci ngëne lim ñu defal ndax moo wax la in shakartum na ko dellu di yeesal sunu ziyaara ci sang bu tedd bi di Seydi Ahmed te di yonent bi yàlla wax ko wa ma arsalnaaka ila rahmatan lil alamin delu di yeesal sunu talibé ak sunu tarbiya ci képaru sang bu tedd bi di mawlaay cheikh ahmed tijani diko ñaan mu nangul nu sunu nek talibé nangul nu sunu tarbiya fa tabarakallahu mu melni ci waxtan yi passé ñi ngi nekkoon ci ñi nga xam ni ñoom la Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani am ñuy nettali lenn ci seen wàllu cër ci wàllu yàlla cër boo xam ni day relevé wu ci domaine u nga xam ni domaine u ku yàlla dénkul fatuhul kabir mënoo xam liy xew ca biir mu mel ni it mag ñi bari nañu leen topp waaye xamuñu seen cër bare na leen topp waaye xamuñu seen cër li ko waral mooy seen cër na muy fese ca xay ba wëli yàlla yi xam ko du fese noonu ci monde shahada bu ko defee moo tax ci barke Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani nuy jéem di leeral yenn ci cër yi pour ñu dégg ca ñi Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani am ci réew mii di Sénégal seen dëgëre ci côté lumière ba nga mën ca xam ku mu doon moom Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani bi ñu jugee ci Cheikh El Hadj Oumar waxoon leen dundam ci côté lumière ñëwoon nit ci Cheikh El Hadj Malick waxoon leen moom dundam ci côté lumière tay ñuy ñëw ci benn khutbul akhtab bu ñuy wax Serigne Babacar Sy sëriñ Babacar si nag doonte bare na ñu ko sopp waaye néew na ñu ko xam li jiitu mooy moom Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani defal na ko moom sëriñ Babacar si ngëneel gu tolloo kuy dund ci tarixa Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani mu nangul la rek di nga ko sopp boo yoree wér di ci tarixa Mawlaa Cheikh Ahmadu Tijaani bëggoo Serigne Babacar Sy jàppal fa nga toog ni sa wér di nangu loolu moom mayu ko boppam Mawlaa ma Ahmadu Tijaani moo ko may Mawlaa Cheikh Ahmadu Tijaani moo ko wax ni ko Serigne Babacar Sy mu ni ko làbbay ko mu ni ko may naa la képp kuy dund sama tarixa yor sama wér di su ma nangoo wér dam dina la sopp su ma nanguwul wér dam du la sopp ma loolu ngëneel gum ko may la li jiitu ci sëriñ Babacar Sy ma nga bokk ca xeetu wali yu ñuy tudde wali yu xaasiya xeetu wali yu xaasiya téeméeri wali yu lañu ñu caxay ba sëriñ Babacar Sy moo leen dirigé mooy premier ca wali yu xaasiya wali yu xaasiya nag am na ñu xamul mooy la xeetu wali yu googu mooy xeetu wali yi nga xam ni soo leen soppee gëm leen boo leen tuddee léegi gis leen léegi loolu mooy wëli yu xaas yi wëli yu xaas yi mooy xeetu wëli yi nga xam ni soo leen soppee gëm leen soo leen tuddee léegi gis leen léegi waaw buñ la jàngalee faatiha léegi nga gis ngëneel ga léegi suñ la ñaanalee dara léegi nga gis loolu léegi mooy wëli yi nga xam ni seen essence ci côté mystique kun fayakun ñoom la ñuy tuddee wëli yu xaas yi soo demee ci xay bu téeméer lañu waaye sëriñ Babacar si mooy numéro un ba moo leen dirigé kon loolu doy na ci wàllu cër beneen dundam ci côté lumière mooy sëriñ kër si dund na 377 ans ci leeru yonent bi téeméeri at ak juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñaar dund na ko moom sëriñ Babacar si ci leeru yonent bi te bi muy dund ak yonent bi ma nga doon dund ak yonent bi ca alxaysiya xam nga wax naa la dangay nekk ci monde shahada di wali ñu ni da ngay sikkër dem ca xayba boo demee ca xayba ginnaaw bi nga génnee àdduna nga continuer zikr pour dem alxaysiya sëriñ Babacar si ci côté lumière ca alxaysiya ci boppam la juddoo waaw kon kooku defe naa dootul dootul wax day zikr ci xayba après pour dem ca alxaysiya ndax ca alxaysiya la juddoo dund naag lumière yonent bi ca alxaysiya 377 ans waaw di wër lumière yonent bi di sàbba waaye lan la doon sàbba ca alxaysiya mooy salaatul fatiha gis nga salaatul fatiha dañ koy jox nit comme wér bi sëriñ Babacar si daf ko juddaale salaatul fatiha dañ koy jox nit ni wér la tàllal sa loxo nga tàllal ñu jox la salaatul fatiha sëriñ Babacar si dafa juddaale salaatul fatiha ndax li muy dund ca alxaysiya ci lumière yonent bi yëpp pendant 377 ans lépp salaatul fatiha ba la doon zikr te boobu leer la xam nga ñetti étape yooyu il faut nit xam ko nekk leer dellu nekk ruur soogay dellu nekk nit leer gi moo jiitu mooy premier étape bi waaw sëriñ kër Si bi mu nekkee état bu lumière ci biir alxaysiya ci biir leeru yonent bi pendant 377 ans lan la doon zikr salaatul fatiha la doon zikr kon moom lumière yu yonent bi dafa ball ci moom salaatul fatiha maanaam dëkk juddaale ci leer kon bu doon lu ni ku ni jox wér di dañuy wax sa wér di ca alxaysiya la woon mu dund fa 377 ans ak lumière yonent bi waaye dellu ci même millier bi même milieu bi di alxaysiya mu dund sa 244 ans ak lumière Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaan waaw te même bérébu alxaysiya Serigne kër Sy dund na fa ak Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani ñaar téeméeri at ak ñeent fukki at ak ñeent deux cent quarante ci même it ni muy dund ak Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani ca alxayse jamono jooju Jawharatul Kamal la doon zikr pendant fukki junne at fukki junne at mu ngi wër lim yar ba di di di zikr Jawharatul Kamal fukki junne ñun ci suñu at yi ci àdduna nga xam da ngay wàññi benn at ñaari at ba téeméer nga wàññi ba junne fukki junne at ci suñu atu àdduna yi wër ne ko lumière Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani di zikr jawharatul kamal waaw te jotewul ak maanaa jotewul ak la mu dund ak moom ci biir ruuxam dund ak moom ci biir leeram 244 ans moo tax bi mu dundee deux deux cent quarante quatre ans yi ci wàllu ruux boobu ruux la de maanaa kon ganeegul àdduna boobu la Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani jël lenn loo xamee ni couronne buur couronne buur lañ koy tuddee maanaam couronne buur boo xam ni dañu seede dañu seede pas-pasam ci salaatul fatiha seede pas-pasam ci jawharatul kamal seede pas-pasam ci tarixatul xaqi ci la Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani jël couronne googu jox ko ko moom Serigne Babacar Sy mooy mbaxane bu ñuul ba mu daan takk ba mu ñëwee ci monde sahaad waaw boo ne carême boobu moo tax du ko changé couronne la ca kaw lañ ko ko joxe ñu ko ko joxee ci alxaysi waaw loolu boo ko takkee di dox mooy malaaka yi fu ñu toll ci àdduna dañuy joxe ni buuru tarixa baa nga ne di dox moo tax daaw ko change waaw xam nga ñu bari ñu ngi def ni mbaxal ni nii rek déedéet nitu yàlla yi dafa ci am ñoo xam ni ci ginnaaw dara dañ ciy làq dara waaw gis nga Cheikh El Hadji waxoon naa leen parasolam boobu mu yore Maodo dafa zikr salaatul fatiha boobu toogatee ci garab goo xam ni sax garab yi amul ker ker daf koy muur Maodo dafa sikk salaatul fatiha boobu doon dox nii ci naaj bi ni ni yonent yi amoon niir daf koy topp bi mu demee ba ragal nit ñi gis nit ñi gis ker gi koy topp gis nga rek ci sagesse am mu wut parasol di ko di ko téye pour nit ñi defe ni ker ga parasol la mais même bu dindi woon parasol ba ker gaa ngi koy topp inaayatu rabbaani la kon gis nga moom Maodo moo ko njëkk def moo njëkk nëbbu jël parasol tiimale ko boppam pour lan pour nëbbu ker gi koy topp te ker moom fexe na ker gi bañatu ko top ba tàyyi mënatu ci dara ndax ker gi ëpp na ko doole ci lumière salatul fatiha la ko jël motax serigne Babacar si moom it nu deseer nekk koronam korona mooy bonekaari boobu ngay gis al alxaysiya lañ ko ko joxe mu denc al alxaysiya ba solam jax mu dem jëli ci al alxaysiya ñew sol waaw du bonekaari nii de xëy na boo ko di nga ni di ni tissu la gis tissu nii waaye couronne lumière la bonnet carré ba couronne lumière la incha allah couronne la bu ko Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani décerné ca alxaysia deux cent quarante quatre ans yi mu dund moom ak fukki junne at yëm ko wër ànd ak di zikr jawharatul kamal Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani décerné ka loolu nga xam ni si dundam ci shahada buy dox ci àdduna fu mu toll nawaamis yi ak malaayika yi ñu ngi koy joxe naan buuru tarixa baa nga na di dox cër la buñ ko jox kon gis nga dund ak dund dundam ak yonent bi dundam ak Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani ñaar ñaari benn bu ca nekk ca alxaysiya la mu wane beneen ba mooy moom Serigne Babacar Sy bi mu ganee àdduna bi mu juddoo ci monde saxaar ni yonent bi defaloon Cheikh Alhaaji Malick noonu la ko Cheikh defal bi mu ganee àdduna Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani dafa ànd ak moom ci ruuram ànd ak moom mu doon liir mu judd ànd ak moom ci àdduna pendant 72 ans mu dellu Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani ànd dellu waaw ah. moo tax ma ni ko Tiwaawan de yëm na ma Cheikh Alxaaji bi ànd ak moom boobu muy dellu waaw Sëriñ Babacar Si gën a àdduna Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani ànd ak moom ànd ak moom amul benn seconde boo xam ni Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani tàggalikoo na ak Serigne Babacar si amul ci dundam laa wax de dundi sahaadaam waaw dundi sahaadaam bi mu ganee àdduna ba bi mu fi jóge nu koy denc amul benn seconde boo xam ni Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani tàggalikoo na ak moom waaw kon loolu defe naa bu doon ci wàllu ànd ci côté lumière rek mën nañu ni loolu mooy ànd kóllëre waaw ànd kóllëre mooy ànd jëmmu li ba ca alxaysiya ànd ak moom ca bu mu ñëw ci monde shahada nga continuer di ànd ak moom waaye gis nga sëriñ Babacar si bi mu ganee àdduna bi mu juddoo ñu ni léegi mu ngi ci monde shahada bi mu amee ñaari at bi mu amee ñaari at laa wax ci monde shahada deux ans nga xam ni xale bu am deux ans fii da daanaka doo ko considéré gu moom ba mu amee deux ans la ko Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani jël si ca Tiwaawan yóbbu ko ba juróom-benneelu asamaan fi yonent bi toog soixante-dix mille cercle malaayika yi wër ko di sikkar jawharatul kamal Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani ni kii ni ni yonent bi kii mooy seexal al Khalifa moom laay def sama xarit gis nga waxu Cheikh boobu damu moo tax foo ni xalifa ci réew mi la ñu Sëriñ Babacar Si ah. léegi nga naan xalifa nuy xalaat jamono Sëriñ Babacar Si foo ne xalifa même boo toogoon États-Unis siin ni xalifa lettre ba joxal ma ko xalifa Sëriñ Babacar Si lan koy jox ku dégg xalifa xalifa ba ca moom la njëkk xam nga lu ko indi mooy xalifaam du rek bi Cheikh Al Hadj Malick àdduna waaw ah. xalifaam ba mu amee deux ans la ko Mawlaay Cheikh Ahmad ñëw taaw yóbbu ko ba ca juróom-benneelu asamaan ci kanamu yonent bi ni ko kii mooy Cheikh Al Khalifa waaw Cheikh kay lu mu wax day wéy yonent bi d'accord tamponeel ko loolu moo mooy mooy moom xilaafaam maanaam nekkul lu mu doon ci Cheikh Al Hadj xam nga dégg nga dégg mu doon wax su ma juddoo woon sa gàncax ga du te doon xalifa Maodo du ma tee doon xalifa Cheikh wax na dëgg xam nga lu tax xilaafa ba doon ko ci kër Cheikh Al Hadj Malick rek fu mu mëntoon juddoo Cheikh Al bi mu doon lay doon waaw fu mu mëntoon juddoo Cheikh Al bi mu doon lay doon lu tax mooy Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani ko présenté yonent bi ci juróom-benneelu asamaan ni ko kii mooy Cheikh Al te boobu deux ans la am léegi nag lan la yonent bi def ci kàddu bi maanaam Mawlana Cheikh Ahmad Tijaani moo indi Serigne Babacar si ca juróom-benneelu asamaan ni ko kii mooy Cheikh al Khalifa yonent bi nag lan la def maanaa ci ci xilaafa ga lu ca yonent bi def boobu deux ans la am de waaw jël loxo nday jooram tekk ci bopp Serigne Babacar Sy deux ans la am ni lépp luy xam-xam di jëme ci tarixa bi di jëme ci diine ji bis ni ki tey mokkal na ko ba mu ba mu mat sëkk ci moom waaw Serigne si Sy deux la mokk lépp luy xam-xamu xaqiqa di xam-xamu sharia di xam-xamu tariqa bi maanaam wérdi beeg na ni àtte wérdi bi deux la ko mokkal ci kanamu yonent bi waaw la yonent bi def ci moom Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani soo koy delloo si waat Tiwaawan kon waxuma mii gis nga relation boobu nga xam ne am na ko rek am na ko ci digganteem ak yonent bi am ko ci digganteem ak Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani su doon foofu la relation am yam dañuy wax doy na waaw mais déedéet bi Serigne Babacar si amee sept ans juróom-ñaari at boobu mu nga Tiwaawan sept ans lépp luy xam-xam ci monde xayba lépp luy xam-xam ci monde xayba ak néeg bu nu tëj di néegu secret jeexal na léegi waaw la am di def tarbiya boppam maanaa tarbiya boo xam ni du tey danga nga toog euh, Cheikh El Hadji Malick woo wala benn kilifa woo di la jox kurus naan la wér dal nangam moom moo doon demal boppam asamaan ba mu amee sept di dugg ci néegu xaybu yi di visiter xam-xam yi ba ci juróom-ñaari atam googu lépp luy xam-xam ci xaybu tëj na ko moom Serigne Babacar Sy kon loolu te xam-xam googu mooy mooy xam-xam yi nga xam ni yii si la yonent yi di jël yii si la yeneen xutbu yi di jël yii si la yeneen wëli yi di jël xam-xam yooyu la tëj waaw waaye xam nga lu gën a yéeme ci moom mooy képp ku nekk bu zamaan ci senegal ñaanu Serigne Babacar Sy la loolu moo gën yéeme bi mu ganee dul àdduna laa wax de ak bi mu ganee àdduna ba léegi dama ne képp ku mës nekk xut bu zamaan ci Sénégal ñaanu Serigne Babacar Sy la maanaam képp kuy xut bu zamaan ci Sénégal war nga delloo njukkal Serigne Babacar Sy ndax moo ko ñaanoon moo ñaan Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani boobu 14 ans la am ni ko dama bëgg lépp luy doon ci xutbaaniyu nga wàcc ko ci réew mii di Sénégal ba noppi képp kuy doon xutbu nga fal ko ci Sénégal fal ko sa tarix Mawlana Cheikh Ahmad Tijaan nangul ko moom kay ñaara am nekk xutbu zamaan bañ ko bañ ko bañ ko wax wala wax ko waaye boo nekkee xutbu zamaan ci réew mi di Sénégal ñaanu sëriñ Babacar Sy waaw beneen bi mooy cër bi ko Mawlana Cheikh Ahmad Tijaan jox mooy amul benn xutbu zamaan bu ko mën a ignoré waaw sëriñ Babacar Sy mooy seul xutbul axtaab boo xam ni toujours premier jour xutbu zamaan bi bu yéeg ci podium bi sëriñ ba Babacar Seye jàpp ca loxoom ca xadaratul ilaahi loolu moom la ko Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani jox ah mooy seul xutbul aktaab boo xam ni su xutbu zamaan dee yéeg di def premier discours am ca xadaratul ilaahi ba juróom-benneel asamaan Serigne Babacar Seye jàpp ci loxoom yéege ka marché yi mu taxaw mu jox kayat bi soogay wàññeeku toog ci fëte waaw amul benn xutbu zaman bu ni ci 325 la wax de jaar naa fi waaye Serigne Babacar Sy téewul woon sama loxo déedéet balaa mu doon jut la commencé woon di téye loxo xutbu ya ba mu juddoo mu continuer di ko def ba nii mu continuer di ko def loolu loolu cër la boo xam ne Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane moo ko décerné beneen cëram moom Serigne Babacar Sy ba léegi nga xam ni cër yooyu sax dañu bëgg dañu bëgg leeral maanaam cër yi nga xamee ne sax ñoo gën a jege xelu nit waaw ndax cër dafa am ñaar. li Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaan di wax nee na cër dafa am yoo xam ni xel mi xelu nit mi dina àgg mu xam cër ba comme monde alxaysiya na mu soree am na cër yoo xam ni moo gën a jege xelu nit ndax baatin la koy jàpp fekk xaqiiqa la waaw sëriñ Babacar Si siège tarixa bii nga xam ni mooy Bahru Kalsum siège tarixa bii di Bahru Kalsum nekk ca mer rouge nga xam soo demee dafay nuroog benn jàkkaleer goo xam ne mi ngi am sooroor boo xam ne soorooru wurus la ruux yi Mawlaay Sama de Tijaan di tànn ruux yi Mawlaay Sama de Tijaan di tànn ci saal boobu muy nga xam ni mooy xale yi nga xam ni dañu war a judd bokk ci tarixa bi ndax Mawlaay Sama de Tijaan képp kuy bokk ci tarixam daf lay tànn balaa ngay judd loolu taxoon Cheikh El Hadji Malick di jarul kenn di propagande ci tarixa bi ndax lu tax tarixa bi ki ci narul bokk yow soo ci bëggoon dugal sax du sotti gis nga ci narul bokk ci tarixa tijaniya boo xeccion bëgg ci bëgg ko ci duggal du ci bokk ndax lutax moy mooy bi ñi ci bokk mawla Cheikh Ahmad Tijani la fi ñuy judd tan na leen bu leen tané nan lay def daf leen di jëlé ci alamul arwah jël ruh ya ruux ya nga melna ay bantu sàkket yo xam ay lumière la ñuy dox ci ndox mu jële ruh yi fofu yóbbu ko ci siège tarixa bi nekk ci biir géej bi nekk ci biir mer Rouge ca jakk leer ga dugal ko ca salon ba bo démé genre cuvette la bo xamni cuvette cercle la ci biir lumière bu weex moo ci nekk dangay gis ruux yi di di nekk ci biir di wër di zikr salaatul fatih ci ba li ko wër benn fauteuil bu ñuul ak benn yat yat ba ak fauteuil ba Serigne Babacar Sy moo ko téye di contrôler ruux yooyu waaw ba léegi nii soo demoon mi ngi continuer di ko doxal moo nekk di contrôler ruux yi xale yooyu nga xam ni war nañu ñoom juddu ci tarixa Mawlana Cheikh Ahmad Tijani ñëw ci monde Chahar ci biir mer rouge Bahru Kalsum mom mo tok ci fauteuil ba yore yat bi di contrôler ruhi xale yoy waaw kon gis nga walu cieur bobu meun nañu ni bokku na ci cieur yi nga xamni ci tarixa bi dafa ci am lu muy fessel lu muy fésal mooy serigne Babacar si du ko xamni meun nañu ni ku jàpp ci tarixa tijani yàlla déedéet dañuy wax ku ci bokk la xam nga dafa am ñaar meun nga ni waliyu bi jàpp na ci tarixa bi dañ ko ka jox waaye kii ci lumière yi fondé tarixa bi ci la bokk moom ci lumière yi fondé tarixa bi ci la bokk wax daal dafa juddaali salaatul fati waaw loolu moo tax nag dëgëreem ci côté spirituel ak dëgëreem ci côté xam-xam ak dëgëreem ci côté xilaafaam ñu bari si réew mi ak ñu bari si àdduna xëy na li ñuy xam ci moom mooy nanu ko déggee woon ci karaama waaw ci karaama waaye li ñu bari xamul it mooy du sëriñ Babacar si mooy sabablu pour def karaama marta baa ma toll foofu xam nga waxoon naa leen bërëb bi ñuy réaliser l'impossible nga xam ni da ngay amee secret kun fayakun mën def karaama yonent yi ñu leen ci compal ñuy def ay mujjiza mbalkala bu nekk ñenteelu asamaan mbalkala bu nekk ñeenteelu asamaan di secret Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani li taxoon nag Serigne Babacar si fésoon ci côté boobu mooy moom mbalka moomu nekk ñeenteelu asamaan wali di ci nan yonent yi di ci jël pour réaliser l'impossible mawla Cheikh Modou Tidiane daf ko ko solal ci kaas jox ko mu nan mom kay karama kenn du ko ci man mom daf ko naan sëriñ Babacar si moy seul wali bo xamni so daan ma sa wax dara mu dégg ka loolu naq di day daw defal la ñeenti téméré salatul fatih su du loolu do fa nan waxuma nga wax ka de comme nga wax dara mu dégg ka loolu neexu il faut mu dem defal la 400 salaatul faatiha sinon doo fanaan waaw mënu si dara xam nga lu tax martaba ma tax maanaam mënul tee mënul tee dara arrivé la su ko yëgee rek am lu ko ca naqadi il faut mu jàng 400 salaatul faatiha yéene la ko yow yow moom mu dégg ci ci yow lu ko naqadi sinon doo fanaan waaw martaba moo tax pouvoir boobu moom Mawlaay Sama de Tijaani jox ko kañ la ka tàggatal ba mu amee ñaar fukki at vingt ans ba mu amee ñaar fukki at la Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani tàggatal Serigne Babacar si suuf si garab yi picc yi yi nekk ci monde shahada di liggéey yi nekk ci monde xayb di liggéey benn bu ca nekk mu sant ko ni ko lu la xalifa wax ni la defal defal waaw Serigne Babacar si boobu vingt la xam nga bi Cheikh El Hadji Malick di génn àdduna boobu ndaw la. waaye gis nga dara mag ñëpp yëlif na leen xam nga lu tax mu yëlif leen ba muy doon li mu doon fekk na vingt ans la mu mën réaliser lu mu bëgg ci suuf si mu réaliser ko lu mu bëgg ci njanaaw yi mu réaliser ko lépp nag ci lan mooy ci Mawlaay sama de yi jox ko jox ko doole ak daraja ju ma sëkk ci tarixa ci tarixa loolu taxoon xilaafaam xilaafaam siiwoon waaw xilaafa bi maanaa bu siiwee du comme Serigne Babacar si lamu lamu remplacer Cheikh El Hadj Malick la mu ci xey bu motax khilafam siw ndax yoyu ñu wax ben bu ci nek dara jala jo xamni so demone ci xadaratul ilahi ba meun nga ni meun nga ni pour ni tarbiya ba ag fa lu jafe la ndax du wali yëpp kay am lolo taxone wali bu mu mënta doon wëli yu bu mu meun ta doon la wax wali bu mës bu mës nek ruhu wali bu mës nek lumière ziyaare nga sëriñ Babacar Si amul benn wëliw bu ni ma nekk naa wëliw ba jóge fi te mosuma ziyaare sëriñ Babacar Si amul waaw loolu amul Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani moo ko ci xëy waaye moom loolu yëpp xam nga lan la ca ñaan lan la ca ñaan moom ci may yeeg daraja yi ko Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani sedd benn bu ca nekk ca daraja yi moom lan la ca ñaan mooy moom sopp Mawlaay Cheikh de Tijaani bëgg tarixa ba noppi doxal ko daaraa tarixa bi la woon Serigne Babacar Sy ku ko xam xam nga ni lépp Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaan lu tax mooy dafa gis ni la mu doon la mu doon sàkkoog la mu doon wut ci kenn la ko gisee ci kenn la ko amee muy Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaan waaye bu ko tolloo léegi nit de képp ku ñuy tolloo tolloolee naan Serigne Babacar si kii Sénégal Serigne Babacar yi maanaam Serigne Babacar Sy martabaam yamul kooku ci wee waaw yamul kooku ci wee tolloowul ak kenn ci réew mi waaw waxuma sax degré bi mu nekk xutbul axtaab waaye cër yooyu mu dajale dafa tolloowul ak kenn ci réew mi waaw xam nga li li li nga xamee ni moom la ñuy faral di wax toujours mooy euh, ñu bare dañu dul dañu dul nangu dañu dul nangu wax dëgg waaw gis nga dëgg yàlla moo ko moom waaw gis nga daraja Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani moo ko moom gis nga wilaay Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani moo ko moom ku mu ko jox waxal waaw sëriñ Si la jox loolu loolu loolu gars yi naan Sénégal diw fi ne Serigne Babacar Sy fi ne loolu mooy wax moo fi ne xam nga lu tax yooyu yëpp luy wax moo ko leeral gis nga Tiwaawan Tiwaawan jamono jii ñu nekk ak jamono ji ñu nekkagul woon yépp mooy dëkk bi gën a leer ci Sénégal Tiwaawan ci ku am basira laa wax waxuma ko dul gis de ku am basira tax may wax waaw Tiwaawan gën a leer ci Sénégal ci ku am basira jaww Tiwaawan rek ngay dem bëgg dugg nga gis mu mel ni cuvette lumière mu couvrir ko jaww Tiwaawan boo ko xoolee ci Basira laa wax mel ni da ngay gis projecteur yu jóge àndandoo projecteur yu nu suul ci suuf yu jóge àndandoo ba asamaan te lumière boobu du wàññeeku lumière bi du wàññeeku te loolu Cheikh El liggéey na ci waaye bi Serigne Babacar Sy ñëwee ca la jël lumière ba def ka mbaar wërale ko Tiwaawan Serigne Babacar Sy ci boppam ci baatin moo sàkket Tiwaawan ak sàkketu Lumière te ba léegi sàkket ba du màggate ma nga ba àdduna di tukki Lumière du ko jóge xam nga lu lu ko lu indi sax ma wax ni ba àdduna di tukki Lumière du fa jóge mooy Alaaji Abdu dafa bokk ci nitu yàlla yi nga xam ni fu nu xas ba tëdd foofu Lumière mënatu fa fay ba àdduna tukki te Alaaji Abdu fa la tëdd Alaaji Abdu Aziz da Dabaax dafa bokk ci nitu yàlla yi nga xam ni fu nu leen denc ba àdduna di tukki projecteur lumière dafay jóge jëm asamaan te Alaaji ab donga Tiwaawan kon moo tax ma ni même ni ko Serigne Babacar si sàkkite it loolu loolu loolu mënul fay benn yoon waaw waaye gis nga bi mu nekkee ci senegal moom sëriñ Babacar si di doxal wàllu tarixa bi di doxal wàllu diine gi ñaar yëpp la boole woon di doxal te waxuma la ni dara ji di ko Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani moo tax mu koy doxal mais lépp lu doon njanaaw lépp lu doon mindeef lépp lu doon teg tànkal ci suuf daf ko nanguloon lool waaw waaye ma ni moom kay ku wax ci ginnaaw sëriñ Babacar si nga wax waaye du jamonoom kooku mag ñëpp mën nañu ko seede ku wax kay ci ginnaaw sëriñ Babacar si nga wax waaw te wax ci ginnaawam sax danger la xam nga lu tax Cheikh daf ko may fépp fu fotoom nekk su ko neexee nga laal foto ba mu wax ak yow waaw moom moo ni carrément ni loolu boo gisee duma ko def dama xaw ruus tuuti Cheikh El Hadj Malick <laughs> wax na dëgg Serigne Babacar Sy fu portrait nekk boo xoolee boo xoolee photo ba gis ñaari bëtam ya xool portrait ba gis bone carrément ba na nga jàpp ni gis na la ah, kay ah déedéet ko kay moom ñu bari am nañ ci gis nag boo xoolee photo fu nekk laa ak fu mënta nekk mu yàgg fa mu mu mu mu nekk fa ay mu nekk fa fukki boo gisee photom boo xoolee photo ba boo sëggee ak boo sëggul yëpp na nga jàpp ni na xoolee photo ba gis na la waaw gis na kon loolu ci wàllu wilaay ga la bokkoon waxuñu rek maanaam nekkoon nekkoon ci tarixa Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaan ni ci kanamam la daan gis ñëpp mais même si ginnaawam waaw si ginnaawam te te ci xeetu wëli yu bu mu bokk muy wëli yu xaas ya ñooñu boo ca xasee ba nekk xutbu moom la mu nekk muy xutbul axtaab dirigé leen melan boo boo nekkoon maanaam tiwaawan melentaan di dox ci ndar sax da koy dégg melentaan laa wax de ak fel bu dalee ci suuf si nga dégg ndax baatin ndax baatin bu bu bu approfondir waaw waxuma nga nga wax dara ci moom mu dégg ko dama ne melentaan bu doon dox wala fel di dal ci suuf fa mu toog ca Tiwaawan la koy dégg te loolu yëpp lan la baatin bu sori ci côté lumière baatin bu sori ci côté lumière sori bi mooy lan mooy salaatul fatiha ba mu daan zikr ca alxaysiya nga xam ni moom la juddaale salaatul fatiha boobu su doon tey jii nun lu ñuy jàng par exemple nu ni nun dañuy jàng allahuma salli ala sayidina muhammadin il fatihi li ma uxliqa ba mu jeex nu fay la fukk moom salaatul fatih ba mujj daale boobuy originalité ba boobu boo ko jàngoon kenn mënul sax wax junne lañ lay fay dañ naan li lay fay ëpp na njortu nit ñi maanaam fi nit ñi ne xanaa fi kay fay mënu fa àgg yow nga jàng salaatul fatih mu ëpp njorti waaw kon sëriñ Babacar si ñoom daan wasifaal moom su jàngee benn ñoom ñu jàng benn ñu nit par exemple fay nañu ñuy junne moom fay nañ ko la ñëpp jàng maanaa maanaam loolu may wax waxuma waxuma côté xutbaa yoo ma tax de déedéet dafay cër bu mu juddaale dafay cër boo xam ni daf ko juddaale léegi nag cër boobu mu juddaale moom ak science religieuse boobu mu am mu bokk ci ñi Mawlaay ma Ahmad Tijaani tànn nga xam ni Cheikh dafa am ñoo xam ni ci tarixa bi ci ay wëli yi dañuy wax nit ñi dañu bëgg Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani ay wëli yu dogg ci moom waaye dafa am ñoo xam ni cheikh moo leen tànn bëggal leen boppam sëriñ Babacar Si ñoo ñooñu la bokk xanaa déggoolu ko cheikh ku ma nangul wérdam kay nu koy xamee mooy du la bañ bañ kay même buy wérd nanguwul ah ak ak këru diine bu mënta bokk ci tarixa ki nga xam ni xolam bëggul sëriñ Babacar Si këru diine bu mu mënta bokk ci tarixa buy wéer dina xam ni wéer wérdam nanguwul ndax xam nga lu tax sëriñ Babacar Si dafay saggu tarixa ñi ko contre ñëpp mooy ñi nga xam ne bu nu sañoon tarixa Mawlaay Cheikh Ahmadu Tijaan nit di sëriñ Babacar Si waxoon na leen lu leer neen leen tarixa bi ba ko boroom di samp kenn mënu ko woon déggal ba mu ma fi tegee du dégg ci sama loxo su fi jógee mu teg ci keneen du dégg mukk waaw ku bëgg mu dégg nag yaay dégg yow waaw wax na dëgg boobu la doon wax kuy contre tarixa bi gisuma la ak mbaaw doonte mbaaw nga dëkk wax na dëgg <laughs> nee na même boo dëkkee mbaaw gisula ak mbaaw wax na dëgg côté lumière boobu moom mu doon dundal ak ak ak pas-pas boobu mu amoon ci tarixa bi pas-pas boobu mi ngi incarné pouvoir ba ca xayba waaw maanaam waa xayba ñoo dem ba gis ni tey su fekkoonte ni dañuy am ku ñuy teg ci réew mi teg ko pour mu dogalal leen ci tarixa bi nu ni Serigne Babacar Sy moo nu ci doy ci lan la doyee nag maanaam rek du du du ci li mu nekkee ci waawan de déedéet ci li mu doyee mooy benn ci pas-pasam ci pas-pasam ak détermination Cheikh El Hadji Oumar Ka njëkk seede ca xëy bi ni Serigne Babacar Sy doy na ma ci pas-pas doy na ma ci détermination Cheikh El Hadji Malick ni doy na ma ci tarixa bi doy na ma ci diine ji waa xëy bu ni doy nañu ci diine ji doy nañu ci tarixa bi doy nañu ci réew mi doy nañ ci àdduna bi kon tey moom doy na ñëpp waaw moom soxlawul beneen ngërëm ngërëm googu ñëw ñu ñëpp dajale moo tax moom si boppam mu am mu am lu ko doy sëkk ba ñu nee seexal xalifa loo ko contre contre lu sa xel sore sore sa xel si moom lay njëkk def waaw ku contre Serigne Babacar si bu nee Cheikh Al nga xalaat ko da nga defee loolu du may ngay gis ku ko bañ xalaat waaye bu ñu nee Cheikh Al rek mu xalaat waaw xam nga lu tax may loolu degré bi Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani jël jox ko mu incarné ko la waaw léegi nag moom degré lumière boobu degré lumière boobu moom Serigne Babacar si moom la def ci Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si Al lu tax ma wax ko mooy nit ñi duñ xam nit ba mu génn àdduna nit ñi balaa ñuy xam nit mu génn àdduna loolu Serigne Babacar Sy yore degré degré spirituel boobu moom la jël def ko ci Serigne Cheikh Tidiane Sy waaw Serigne Cheikh Tidiane Sy ko doon waaw moom kay doon bu leer nañ ñu ni miti waaw moo degré boobu la jël def ko ci moom nit ñi duñu gërëm nit tànk jógewu waaw waaw Serigne Cheikh wax naa kenn mënul natt wàllu xam-xamam ci côté philosophie spirituelle ak ci côté philosophique ci côté aduna ci côté religion ak ci côté tarixa bi waaw moom ñu ni xana ben ben valise la sax bo xamni valise lumière la bu nekk Sénégal ci roxam te ñu bari xamu ñu valise lumière bobu mën ko jëriñoo sëriñ Cheikh a doon na sëriñ Babacar ci waaw sëriñ Babacar ci ko jël def ka ndono waaw moo tax mi ngi ci réew mi de ma nga Dakar de waye lo koy wax ak roxu ba lu mu sore sore ma nga lay dégg waaw waxuma khutba ni yow ma tax de doon gi mu doon Serigne Babacar Sy ci baati na tax waaw kon gis nga cër boobu nekk gis nga cër boobu nekk ci côté spirituel waaw waaye gis nga yooyu euh, taalibe Mawlaa Cheikh Ahmadou Tijaani yi kii di yëngu ci tarixa bi yu mel noonu loolu war a xam ñu bari dañ ko réer mhm. ñu bari dañuy jël wérd yore wérd tarixa bi waaye dañuy réer mag ñi nga xamee ni ñoom ñoo yiir tarixa bi seen cër na mu mel su ñu ko xamoon xel dina dal fen fan la xel di dale mooy xam ni yow ba nga juddoogul ba nga juddoogul ci tarixa bi nga bokk ba nga juddoogul ñi ko doon yiir amuñu ku leen sut ba nga juddoo ñi koy yiir amuñu ku leen sut boo fi jógee ñi koy yiir amuñu ku leen sut waaw loolu doy na ci tarixa Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaan looloo tax loolu Serigne Babacar Sy incarné woon ñaari vision moo ci feeñ maanaa ñaari gis-gis ben gis-gis bi moy mission tarixa bi mission tarixa bi ko Mawlaa Cheikh Ahmadu Tijaani dénkoon ci jamono mom Serigne babakar sey tax na ñi nga xamni ni xamuñu won tarixa cheikh yëpp daje nañu xam ko ci lenn nan nañ ko xamé moy mom mawla Cheikh de tijani def ka khalifam li nuy tuddé noonu khalif général mu nekk ko mom khalif général de tijani bu waxe khalif général de tijani nak waxuma mana rek ci tour bi ni wala ci français bi dama ni mu nekk khalifa mawla Cheikh Ahmadu Tijaani fi ba ñi cheikh am face ñi mu am Tunisie ñi mu am sine ñi mu am Dakar ñi mu am Congo ñi mu am ñëpp mu nekk seen xalif waaw ci général boobu la ci jublu di doxal tarixa bi ci nan mooy ci lalal nit ñi nu wasifa nuy wasifa mu lalal nit ñi nu xadara nuy xadara mu lalal nit ñi ni di leen laazim mu lalal nit ñi ni di leen julli mu lalal nit ñi ni di leen sopp Mawlaa jama de Tijaani ndax mooy ki jara sopp te ku ko sopp ram ci loolu la doon doxale de waaw koo dégg ma ni la mu ni critique ci moom dafa bëggul diine wala bëggul tarix Serigne Babacar Sy lu ñu ko wax ci tarixe bi la mës di soññi nit ñi ci diine ji la mës di soññi nit ñi ci nag yoonu Mawlaa Cheikh Ahmadou Tidiane la mës di soññi nit ñi te wax na dëgg waaw boo dajee koo xam ne moo mën ñëpp kay mu jox la lim lay jox ci secret jox la lim lay jox ci zikr jox la lim lay jox ci euh, daraja looy séenoo ci leneen waaw moo indi woon wax jëmu daan faral di wax ni am dara te xamuloo ko ñàkk ko te xam ko moo ko gën waaye lu nekk fexeel nañ ko ko lu nekk fexeel nañ ko waaw mos naa leen koy nettali benn mbokk dem na ba Mali pour liggéey ko xam nga ko nu mënalul dara dañuy wax nan la jógal mystiquement waaye xam nga mbokk moom lu mu xamul woon mooy Serigne kër si xeetu wëli yu ba mu bokk mystique du leen jàpp <laughs> wëli yu xaas si mystique du leen jàpp lu tax mystique du leen jàpp mooy mooy mystique daf leen déggal xalima ba nga naan bindal baa pour pour baa bi mu yàqu dafay bind baa pour mu baax boo <laughs> ko doon liggéey lool la xamul xeetu wëlu alxasiya soo ci bokkee xalima bi ñuy bind ni alif bii na yàqu alif ba day wëlbatiku ni alif bii na baax looloo tax bi mbokk ma demee Mali nii daf koy liggéey dajeeg féticheur bu mag ba sœur bu mag ba ko moy kan kooku nuy ci tiwaawan mu ni ko waaw mu ni ko mën naa ko de waaye foog nga joxe xaalis bu bare te sœur boobu ku mës xaatim génn nga àdduna mbokk ma ni daal nun réew ma mën a lun ko dara léegi dañu bëggoon nga xaatimal nu ko sœur bi ni baax na waaye li may ci xolu mbaam laa koy def ci xolu mbaam laa koy def dem jënd rey mbaam ma nu fees mbaam ma xool mbaam ma amul xol mbaam ma amul xol ciy dund mbaam ma nu fees mbaam ma mbaam ma amul xol mu ni lii de yéem na ma te mi ngi may soogaa daal jënd ci beneen mbaam ni nan reyaat nu reyaat mbaam mu fees mbaam ma amul xol muy ñaareelu mbaam mu amul xol te mamoon xol doon dund mu ni lii daal ay mbir la rayan ñettelu mbam bi mu ray ñettelu mbam fess nak gis xol ba mu ni waaw kay mbam mi mo am na xol dal di laaj waxa xànjëram ñu jox ko waxa xànjër bi mu defar khatim bu mu daan defar nga xamni ko sa daan dugal daaw a bind ci bir khatim ba turu Serigne babakar ci jox waji ni tegal ci nadi li su wowe borom génn ad waaja tok ñetti waxtu aliou bu mënul fexé ba wow té nadi be ngi tang di té aliou xanjar la mu ah, doy na mu ni waji dal dama aliou bi ñu xol lu tax mënuloo waa dem bay jëli aliou bi ni ko ah dafa mel mi ngi waaja wow de mu ni wa ma xol mu xol gis fa mu bindon serigne babakar si nu dindi ko moom bind fa turu sëriñ bi ci boppam ba mu bindoon sëriñ Babacar si ñu bind sa turu sëriñ bi ci boppam te Aliou baa ngay waajoo waaw mu mujj wax waajo ni que man de xam naa ne damay dee waaye léegi li ma bëggoon bu ma deewee daal delloo ko xaalis bi ni ko daal demal ci waawan nga jéggalul ma ko dax xam naa ne man damay dee ndax lii sama tur lañ ci bind te far na ba tàyyi mënul fexe ba far bi waa ji laata waa ji di génn Mali sëriñ ba de di waji delo ñew fekk serigne babakar ci ca wetu jàkk ja ma nga bot ay loxom gàddu sam non la daan dox li muy bari bari ci foo foko daan rombu ma nga sol jàllaabeem tak boné carré bu ñuul boti loxom <laughs> di jabanti ci wetu jàkk mawda waji ji ak seeg xelam terrain ba ñew niko ko waaw sëñ bi dañu bëgg dama dama la bëggoon gis mu ni jarul gis serigne babakar ci jarul gis ñaari xolu mbam yi jitu ma nga ne ma sanni ci àll ñettelu mbam ma ngeen ray ma nit ñi sax dañ may fonto jaru muy dindi xol ba na le baaw xol ba ngeen ngeen jël xol ba sampu ci deretam khatim khalima ba lank ngeen ko serigne babu si mu bind sen tour yéen te sen ñaari tour la naron bolé waye dama bëggoon yow nga ñew ba wax mako ko fat pare koku kooku yonne na ci man yonne ba amul njëriñ li si des kay mooy xalima baa ngi xaar ndax mu bindaat la yow ci wet daa waa ji sukk ci kanamu te waa ji bokkul ci tarixa bi bi waa ji bokkul ci tarixa bi waa ji sukk ci kanamam jéggalu ko jàpp ay loxoom ni ko dimbali ma bu ma bind ca wet ga sëriñ Babacar si ni ko luy pay ba léegi comme luy luy taxu léegi ban daraja nga am bu du la bind sa wet gi te nga demoon Mali mu ni ko léegi damay damay damay tuub jël wér di tarixa bi bokk ci tarixa bi gëm Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani Serigne Babacar Sy d'accord ñëpp ko xamoon lu mu daan mer mer boo ko tuddalee Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani mu d'accord lu mu daan mer mer boo ko tuddalee Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani mu d'accord mbay doon di nee la mu gënoon bañ mooy mooy di lekk di tuuru ñam waaw ma toog ci sama ci ci ci biir saal ba ci souf di lek am peppu ci bi wat ma nga ci kaw sal bu deg na peppu ci bi ya mu commencé wàcc te ma nga ci xaal ya. neena mu ñew ak ci ti buntu sal bi xol ma ma xol ko ma xam ni góor gii daal la bañ def ma xalaat xalaat cey genné rek mu yoxu innal ma <laughs> waye ma nga alu won yëkëti kurus ga ni téy ko ni ko maw téy mu waccé wat kurus ga dima nee na mooy ba yàgg mu yëngal boppam ni cëy seex kenn du moom waaye li ma metti mooy nit ñi xamuñu ko lu lu mu mës a mer moom Serigne Babacar Sy boo tuddee Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani mer nga gis moom boobu am na ko ci Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani mooy lu mu mer boo tuddee Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani mer nga mayoon na ko loolu ci dëgg rek xam nga loolu may la maanaam loolu du rek du rek bëgg goo xam ni bëgg guy fës la mais loolu may la may la may la mooy nga mer nit tudd Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani nga bég loolu loolu may la fekk sa xol mi ngi yaa ngi yaa ngi tàng ba sa xol tollu fenn waaye tudd gi ñu tudd Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani delloo si na la loolu moo doon melokaanu Sëriñ Babacar Si léegi nag li tax ñenn ñi nga xam ni bokkuñu ci tarixa tijaaniya comprendre ñu dundam mooy moom dundam principe la Sëriñ Babacar Si dundam principe la xam nga principe ba mooy la mooy dafa nekk xalifa ci islaam bi moo taxoon mu ni du ma nangu kuy sabooti islam wala di ko la ñii di sabooti islaam bi yëpp léegi la waaw waaye bu doon moom du leen bàyyi noonu de moom jamonoom kenn du laal islaam bi beneen bi mooy mag ca mooy mag ci kër Cheikh Al Hadj Malick ni woon du ma nangu it kër gi beneen bi mooy xalifa Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani mu ni du ma nangu kuy fooye tarixa bi ñett yi la ni soo ko fi bàyyee loo def baax na boo ci laa ñu jëflante ko loolu nag ku ko bëgg doxal ci réew foog mu am ñeneen ñi nga xam ni dañu bëggoon jaxase wala dañuy bëgg laal foogu ñu féete fenn fi ci yow waaw waaye foo mënta féete ci moom foo mënta féete ci moom moom Serigne Babacar Sy yàlla defal na ko ci barke Mawlaa Cheikh Ahmadou Tidiane loo xam ni muy moom di yéreem di malaanu perkaalam di di di di càngaayam di parfum ba ñu ko sotti woon même parfum ba ñu ko sotti woon ba mu génnee àdduna ba ñu koy denc suuf ñemewul jël xeetu parfum boobu suuf laa wax ñemewul nangu xeetu parfum bi nu sotti woon Serigne Babacar Sy maanaam Serigne Babacar Sy ba mu génnee àdduna parfum bi ñu jëloon sotti ko su doon léegi danga jël nu ni parfum bii léegi sotti ko suuf ñemewul maanaam nga ñëw léegi cinquante ans après nga xeeñtu parfum ba fekk nekk fa suuf ñemewul loolu ci xeetu wëli yooyu la bokk wali yu nga xam ni parfum ba nga leen sotti woon bi ñu génnee àdduna boole malaanu perkaal ba nga ñëwaat juróom fukki at ñu ni nga dellu si suuf ñemewul jël xeetu parfum boobu waxatuma la ak perkaal waaw kooku muy wali yu piir yi waaw wali yu mbokk duñu du nu wax rek ni ci cadre wali yu xaasiye yi la comme nga fay dégg xaas bi pour maanaa ni mu nekkee wali yu kun fayakun mais wali yu piir la dafa nekk wëliyu ci ci yàpp yaramam nekk wëliyu ci dereetam nekk wëliyu ci yaxam nekk wëliyu ci ci jëmmam ak ci jëfam ku ñu couronné kay mbaxane boo xam ni buuru buuru tarixa bi lan lay tudde booy dox ci kaw suuf loolu jeexal na moo tax moom melokaan boobu mu amoon ci côté spirituel degré la boo xam ni suñu doon tudd tey ni tarixa bi am na ku muy bége wala tarixa bi am na ku muy ndamoo Serigne Babacar Sy la ñuy tudd su ñuy tudd ni tarixa bi am na ku muy bëgg wala tarixa bi am na ku muy ndamoo Serigne Babacar Sy la ñuy wax moom nag Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani defal na ko lenn néew na ci wëliyu wëliyu yoo xam ne am nañu loolu wala ci xutbu yoo xam ne loolu am na ci ñoom mooy xol bu ko bëgg te muy dëgg xol boobu borom du lakk ñu bare nag ñu ngi naan bëgg naa Serigne Babacar Sy bëgg na bëgg ga guy dëgg xol boobu du lakk Serigne Babacar Sy benn xol du ko sopp cofeel ga di dëgg ci xol ba ba noppi boroom xol boobu di lakk ëllëg di dem safara amul ku ko bëgg sa aljana taxaw waaw loolu Mawlaay sama de Tijaani moo ci ay cëram la bokk nga dafa am wëli yoo xam ne dañ leen may loolu maanaam seen cër la bokk dafa am yoo xam ni soo leen bëggee bëgg ga nga leen bëgg mooy mooy jël sa yaram def ko mu xaraam safara maanaa loolu du lu nit ki di wax sama yaram dafa araam safara ñu koy wax maanaam ci sa cër lay bokk ci cëru Serigne Babacar si la bokk wëliyu la boo xam ne képp ku ko bëgg sa yaram xaraanu safar loolu ci ay cëram la bokk Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani moo ko defal diggante bi nga xam ne nag dund na ko ci Sénégal barke bi dundam def ci réew mi barke bi dundam def ci réew mi bu ñu toogoon yeneen téeméeri at yeneen téeméeri at laa wax de maanaam bi Serigne Babacar Sy génnee àdduna en 1957 Sunu nu toogoon ba deux mille ba deux barke bobu dund sëriñ Babacar si def ci réew mi du fay ba mu génnee àdduna 1957 suñu toogoon ba 2057 maanaam dundam ànd na ni bis ba ko dencee Maolaa Cheikh Ahmad Tijaani mayaan na barke ci lumière te réew moom doon dund téeméeri at yoo xam ni dañuy dundu ci kaaraange dundu ci yiw dund ci sécurité kon bu Sénégal amee jàmm am sécurité bu nu wax benn nit Serigne Babacar Sy tax waaw moo tax mu am ka de déedéet parce que moom la Mawlaay Sama de Tijaani may dundal ginnaaw buñ ko dencee mu amaat téeméeri atu sécurité waaw moom la ko Mawlaay Sama de may moom la Cheikh may bu ñu ko dencee ginnaaw denc ba ñu ko denc mu amaat téeméeri atu sécurité moom la ko Mawlaay Sama de Tijaani may kon barke googu nu am ñun ñi nga xam ni ñooy dund ci réew mi di Sénégal yiw boobu ñu am sécurité boobu du am ak stabilité ba loolu it ci barke bi topp Serigne Babacar Sy la waaw xam nga am na wali yoo xam ni dañuy wax seen dund yëpp dañ leen di defal barke dund ga yëpp barke lay nekk dund ga yëpp sécurité lay nekk am na ñoo xam ni dañuy jël barke gi nu amoon seen dund fulaat ci meneen barke suñu génnee àdduna barke boobu day continuer di des Serigne Babacar Sy noonu la mel diggante bi nga ko dencee ci bàmmeel ak diggante bi barkeem di continuer lu mu tuuti tuuti dana jël cent ans cent yoo xam ni ci fa mu doon dund ci sécurité nañuy nekk ci barke la ñuy nekk ci stabilité la te loolu degré pouvoir spirituel bu ko Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaan yi defal la kon gis nga sunu limoon loolu kese ci darajaam sunu limoon loolu kese ci cëram dinañu dégg lu tax tarixa tijaniya ñi ci féete kër Cheikh Alhaji Malick ñu bari ngay dégg sax léeg-léeg duñu tudd Maodo dañu tudd Serigne Babacar Si dana jaaxal nit waaw am na ñu muy jaaxal leeg nga dégg koo xam ne taalibe Cheikh Al Hadj Malick la nga dégg buy wax di wax barke Maodo malik barke Serigne Babacar Sy lay wax xam nga lu tax bàyyi rek bi ko Maolay Cheikh Ahmad Tidiane may moo dugg ci xolu Tidiane yow xam nga dan naan ñëpp daanu baax waaye dina am ku nekk ci xol yi na mu jëloon moom Serigne Babacar Sy Maolay Cheikh Ahmad Tidiane def ko ci xolam ba mu jeex takk ba du liggéey dara te boolewu ci Maolay Cheikh Ahmad Tidiane noonu la Cheikh jëlatee képp kuy taalibeem xàqan moom it mu mu fayee la ne Serigne Babacar Sy def woon ci moom muy mu jël Serigne Babacar Sy def ko sa xol ba kuy jàpp kóllëre ci ci xayb di jàpp kóllëre ci shahada di jàpp kóllëre ci lumière faw nga jàpp Serigne Babacar Sy lu tax mooy kóllëre ga mooy kóllëre ga mu amoon moom si digganteel ak Mawlaay Cheikh Ahmadou Tidiane kon gis nga wàll googu ci côté wilaayam waaw kon loolu mooy wane maanaam moom bu ñu ko jëloon en gros du nu wax digganteem ak li nga xamni yàlla jox na ci walu cër duñu wax digëntem ak li yonent bi sédd ci walu cër mais digëntem ak li mawla Mawlana Cheikh Ahmad jox ak na mu représenté tarixa bi en tant que khalifa Cheikh tijani ak na mu doxalee tarixa bi ci réew mi lore doyon doyoon gis nga même ba mu làkkoo moom sëñ Babacar si ba mu làkkoo ba mu làkkoo nu denc ko bokku na ci wëli yi nga xamni fi ba aduna di tukki bis bu ne ñaari malaka daanu xëy sol jàllaabe yu wex tok sen xabru wàcce fa kaamil bañ dencee Serigne Babacar Sy Tivaouane laa wax de 1957 ba fii may wax ak amul benn bis boo xam ni du ñaari malaayika daje nañu ñëw toog ci xabru Serigne Babacar Sy wàcc fa kaamil suba su ne heure bu sept heures jotee boo amee basiira soo demee ci xabru di gis ñaari malaaka yu toog di jàng kaamil alquran ba kaamil ba jeex malaaka yu jóg dellu xëy bañ ko dencee ba léegi laa wax de bu la yàlla mayee basiira ngay gis bu 7 heures 0 minute jotee demal ci waawan taxaw ci xabru Serigne Babacar Sy di xool léegi nga gis ñaari malaaka génn ci xabru bi ak seen jàllaabe yu weex teg seen kaamil alquran fatiha baqara ba naasi ba mu jeex tàkk nu jàng xat xatmu def ko hadiya Serigne Babacar Sy dellu xay ba mu génnee ak ba léegi laa wax ah kon gis nga mooy wane ni même degré ba mu ne ci degré spirituel ba kenn xamul na yiwam toll beneen ba it ba ci gën a yéene mooy moom Serigne Babacar si bi ñu ko dencee sa xabroom ba ba léegi amul benn xadaratul juma laa wax benn xadaratul juma sa ca zawiyaam ci bu mu tardé boo amee basiira xadaratul juma boo ñëwee ci waawan ñi ngi toog nii di xadara boo gestoo xabru Serigne Babacar Sy seen ma nga karanko lay ci biir ak jàllaabeem bu weex ak bonekaareem bu ñuul gàddu kurusam di xadara waaw amul xadara bu mu tardé heure boo ñëwee ca zawiya ba soo toogee lal malaan bi xadara ajjuma boo boo amee basira laa wax de boo gestoo xabru ba seen kaak jàllaabeem bu weex mbaxaneem bi bu ñuul di bonekaare bi gàddu kurusam ànd ca xadara amul xadaratul juma bu mu tànn kon mooy wane ni ba léegi moom ma ngay ma ngay superviser <laughs> ma ngay superviser la fa ne mooy wane ba léegi kon moom ma ngay superviser tarixa bi kon mooy ñi nga xam ni bàmmeel du leen tee sax ba ñuy tàyyeel ci ci ci zikru tarixa bi waxuma zikru barzaqul maktum de zikru monde shahada xam nga wëli yaa nga barzaqul maktum ña la ña nga ca xadara Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani ca biir aljana Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani moom ba léegi day superviser xadaratul jumaa ci Tiwaawan waaye ba léegi réew mii di Sénégal lu ko fi neex moo fi am lu ko neexul du fi am ba léegi kon moom xilaafam du làqu na rek gis nga yi ma leen di wax ci moom yu leer naa ñu ni midi la yu leer naa ñu ni midi la du estimé kaa tax du nekk suñu kóllëre tax dafa am ci moom senegal bii ba léegi lu fi neex Serigne Babacar Sy moo fiy dox lu ko neexul du fi dox ñi ko xam di diisoo moom di dégganteeg moom xam nañu bu baax lii may wax waaw kon gis nga <laughs> génn na àdduna mi ngi ci du baatin teewu ko mu dellu si ci monde shahada toog ca zawiyaam ca tiwaawan toog ca xabroom di superviser xadaratul jumaa ku dugg si xadara xam na la ku génn xam na la ku commencé xam na la ku tëj xam na la ku lem malaan ba xam na la waaw fu ko nit fu ko nitu yàlla di di di ziare moom laa gis muy wëli boo xam ne fu ko nitu yàlla di ziare dana génn ci xabru bi jóg saakonteeg yow fu ko nitu yàlla di ziare même bu nekkoon ci xay ba soo agsee toog balaa ngay ziare mu wàcc ñëw nuyenteeg yow te am na secret bu ci nekk nag ci ci mbiram hmm. xam naa kenn mënu tudd yëpp waaye nu tëje boobu am na secret bu ci ne gis nga soo dee nitu yàlla soo demee Tiwaawan laa wax soo dee nitu yàlla soo demee Tiwaawan njëkkeel ci xabru Serigne Babacar Sy xam nga lu tax mën nga dem ci xabru Cheikh Al Hadji Malick saakoonteeg Maodo nuyonteeg Maodo waaye doo gisee gum Serigne Babacar Sy tànk demoo ci xabru mën nga dem ci xabru Alaaji Abdou Alaaji Abdou Diouf nuyu la ngeen saakoonte mu delluwaat ca xay ba waaye dama seetlu boo demee ci xabru Serigne Babacar Sy Serigne Babacar Sy day génn ca xabru ba ci saase yow nitu yàlla bi saafonteeg yow nga gis ci saase Maodo génn nuyu la nga gis El Hadj Abdou génn nuyu la loolu am na ci xabroom secret demee ci waawoon ci xabru Serigne Babacar Sy boo ziyaaree xabru ba Serigne Babacar Sy day génn saafonteeg yow Maodo génn saafonteeg yow El Hadj Abdou génn saafonteeg ci même xabru ñoom ñett ñëpp ci même xabru boobu dañuy génn saafonteeg yow boo amee basira dañ leen di gis te boo teggi woon ni xaaral ma njëkke fee nga njëkke fee da gis ni di nga saafonteeg ñële waaye moom doo saafonteeg moom tant que duggul ci zawayam kon cër boobu am na ko waaw muy relation bi nga xam ne am na ko ak baatin am na ko ak tarixa kon gis nga suñu tuddoon lenn ci relation yooyu suñu tuddoon lenn ci relation yooyu doy na waaye gis nga dundam yëpp mystère la xam nga lu tax mystère bi sëriñ Babacar Sy daan incarné ci xëy ba du def na ko ci Serigne Cheikh Tidiane si mais ana Serigne Cheikh doo te lii yéeme ci réew mi mooy dañuy am nitu yàlla yu mag dul leen xam man Sénégal jaaxal na bu fi sëriñ Cheikh nag demoon ba gisatul nu commencé naan nangam naan mi ngeeg baatinu sëriñ Babacar si toog ci roqam waaw mi ngeeg boobu toog ci roqam baatinu sëriñ Babacar si melokaan nga muy fu sëriñ Babacar si fu nit daan toll ci àdduna looy wax mi ngi lay dégg looy wax fooy toll ci àdduna sëriñ Cheikh Tidiane Seck lay dégg loolu pour ñëpp nag tax ma baaxee leen ko pour journaliste yi wax ci moom ak pour ñëpp ñuy wax ci moom lu waaye di wax Serigne Cheikh Tidiane si sa bureau wala bindoo bindoo goo ko ci ordinateur ba wala yaa ngi koy waxtaanee diw dégg na la te su ko bëggee faj faj ko fa mu toog waxuma mu génn di di def déclaration de fa mu toog mën na ko faj waaw baatin boobu ak mystère bi mën ko jëlee ci Serigne Babacar Sy waaw waaye nun nag nun Sénégal dañu amul habitude xam lu dul nit koo xam ne rek bis bu ne mu ci média yi di wax waaw Sénégal loolu mooy suñu habitude kon nanu xam ni tarixe bi Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani rëdd ñi mu ci indi kenn ku nekk mu def ci sa cër boo seetloo waxtaan yi sax bi mu dooree ba léegi ku nu tuddoon rek danga naan xanaa doyoon <laughs> fu mu ne nii nu tuddee Cheikh El Hadj Omar da nga waxoon loolu jeex na jartul nuy wax keneen bu nee Cheikh El Hadj Malick loolu tëju na bu ne Serigne Babacar Sy da nga naan koo jartul keneen bi ci ñëw loolu nag lan lay wane mooy Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani ñi mu am kenn xamul ah. seen tolluwaay nam ah, la xam nga ñi kenn ku si tudd fu mu ne mën nga diriger diine ji diriger tarixa bi diriger àdduna ba diriger àllaaxira wallaay ndeysaan rek Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani mi ngi ci xaymaam bi wér de yow nga diriger lépp wallaay wallaay ba ma waxee Cheikh Alhaaji Umar leer na leen ni Cheikh Alhaaji Umar bële mën na diriger fii ba diriger barsax ba diriger yowmal xiyam ba diriger sax ñeen àjjana Cheikh Al Hadji mën na diriger fii diriger barsax diriger yowmal xiyam ba diriger ña ne àjjana Serigne Babacar Sy mën na diriger ñu ne fii diriger ñu ne barsax diriger ñu nekk ba diriger ñu ne illiyin kon kay Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani mii seen sëriñ léegi moom lu mu lu mu ci wut ah keneen la pour wan la degré degré spirituel bi nekk ci biir tarixa bi mhm. waaw bi nekk ci biir tarixa bi leer gi nekk ci biir tarixa bi ak ñi Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani am seen tolluwaay lan la waaw loolu loolu lim lay jàngal du sax nit ñooñu ndax ñooñu kenn mënu leen xam seen grandeur spirituelle kenn mënu ko natt ba mu mot lam lay jàngal mooy tarixa Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani lan la li ma leen di wax dama leer nañ ni ci man déggoo ma ni leen dëgg dëgg laa leen di wax yoon laa leen di wax la la xew ca xayb laa leen di wax su doon def fi am morom dama naan la am na fi morom amu fi morom waaw Cheikh El amul moroom ci réew mi amul morom ci àdduna bi Cheikh El Hadj Malick amul moroom ci réew mi amul moroom ci àdduna bi Serigne Babacar Sy amul moroom ci réew mi amul morom ci àdduna bi amul morom ci barsax kon kay leer morom amu fi li fi ne kay mooy ci la jàngal leer ga ak ku la waxul mais seen dund ñoom soo ko xamee dégg ka ca ña mawla Cheikh jox fatul kabir dinañ la jàngal ni la amunu morom ñoom kon ku yóbboo kay barke bi ñu amoon ñoom ba ba topp ci ginnaaw mawla Cheikh Ahmad Tijaani nga ñaan fexe boo mënul toppe noonu ci ginnaaw mawla Cheikh Ahmad Tijaani nga am noo toppe ci mawla Cheikh Ahmad Tijaani ndax lam lay wan lenn la mooy mawla Cheikh Ahmad Tijaani mooy waaja mhm. loolu la lay wan tariqa mawla Cheikh Ahmad mooy souvenir ci àdduna mooy sauver ci àdduna ba bu fekkonte ni lëndëm am na sa kanam lëndëm sa kanam leer naa ñi di melax tariqa Cheikh Tijani mooy raxas sa ruubu ba mu set wecc ci àdduna waaw tariqa Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani bu ñuy wax muqarraboon ñi ñoom la ñooy ñi jege yàlla waaw boo wut jege yàlla jàppal ci tariqa moo Cheikh Ahmad Tijani soo demee ca bàmmeel ca barzaq lii yaatal sa bàmmeel di ko féexal mooy tarixa Mawlaay Cheikh ma Tijaan lay tax yowmal xiyaam ñëpp taxaw ci naaj nga taxaw ci ker mooy tarixa Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaan lay tax yowmal xiyaam ñëpp di jaaxle nga dugg ci bato nekk ci géej gi di dem lay tax nga toog fi mat fi mat adi sidqin indal malikul muhtadir mooy tarixa Mawlaay Cheikh kon tariqa Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani <laughs> moom la moom la moom la cheikh yoor ci monde shahada <laughs> pour mu sauver ñi bëgg ñi bëgg sauver mhm. waaw luñ la mënta wax nag tariqa boobu rek am mooy ban mooy bi yàlla fondé di fondateur personnel waaw loolu tax Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani bi mu ñëwee amul ku mu ko jox lu dul axtaar mhm. te kenn mënul doon xutbu te dundoo ci tariqa Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani sëriñ ka si kay nee na xut boog xaw soog lab daal ak mafatihul kunus yëpp benn du ci génn tarixa Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane kay wax na dëgg kon nun fekkente ni ñi ngi ñi ngi ñaan di nekk taalibe Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane dañu war a ñaan waaye nag santaale yàlla waaw santaale yàlla ba mooy am nañu sensu bokk ca mënoon nañ si bañ bokk mm-hmm. waaw mënoon nañu sax bañ xam li xew mm-hmm. ah. mënoon nañu dund bañ xam li xew munoon na nañu dund bañ bokk ci tarixa Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaan wallaay dund bañ xam degré mag ñi mënoon ñu bokk sax ci ñu contre ay Serigne Babacar Sy ñeneen waaw te Serigne Babacar Sy ku ko contre safara nga jëm waliyu xaasiye la bokk waliyu xaasiye ku ca contre kenn yow de bay boo nga bàyyi julli bàyyi woor bàyyi génn asaka ndax soo koy def it du la jëriñ dara safara nga jëm ah. amul benn werante bu ci waliyu xaasiye ku ci bokk soo ko contre amul kenn ku mën a tee ba doo dem safara soo déggee nit ñi naan non safara yàlla ko moom yàlla mi moom safara moo lay yóbbu safara moom koy jarul yow xam nga nii bu déggee nga ni ku kontu sëñ Babacar la jëm nu naan non safara yàlla moom yàlla mi moom safara moo lay yóbbu safara wëlu yu xaas ma nga ca maniyalu xadaratul ilahiyya koo ca kontu safara pi safara direct nga jëm boo sa jëf yu baax yëpp la ñuy arrêté sëriñ Babacar Si moo dirigé wala yu xaas kon yàlla ñu yàlla yàgg def taalibe Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani xaqat mu nangul nu sunu dund ci wàllu leer nangul nu sunu wérd def nu nu doon taalibeem xaqan may nuy dund ak moom zahiratan wa baatina mu may ñuy dund ak moom dund abadan ba biir illi yi asalaamaaleykum wa